Bouchra day tok ma dem wala man ma tok Bouchra dem tanal ben qu'est-ce qui se passe lu Keba lan moy grand tan gars yi gis na len nañ len encercler tan ci len def len lu metti saa yi déet d'accord man nañu police. bëgg na bàyyi sa dom mais ci kaw mu fay 15000 francs mais bañuma fay mais quand même da am reçu. saabu la kay mu ngi ci kaw. di hmm. def essayage ay yéreem. wa yere lan. yere xew bi yere mariage bi. bu ma ne yaay ju nga def li ma la wax yow ban problème nga am ñu jàpp sa datu mariage ba date de jour du mu nga indi say caprice teg ma yëgle gauche yëgle droite sa yaay yëgle àdduna bépp yow da nga xamul ni ñi ci mbedd bi nawle lañu. da nga bëgg daal ñu ne waa tuuti kat mariage ba see annulé lu tax ñu annulé ko ñu ne parce que dafa fekk jëmm di ko liggéey.